que ñen ñi bu ñuy utiliser yenn forme de lutte mhm. bu ñu xalaat seen bopp mhm. Mhm. nañu xalaat ñii di ñi ñuy ñi ñii ñi jëmale message boobu noonu donc loolu noonu lu ma mëgoon dolli la ci loolu maintenant tey jii nii joor xawma ma naan euh, ana dañoo nekkoon ci situation war a dem élection demuñu élection mu leer ñëpp lu tax demuñu élection chacun peut donner ses raisons mais man luñ ma jox comme raison doyuma doyuma. d'accord waaw ndaxte tey jii nii euh, juge bu ñu nee dañ ko guer ak yooyu noonu. bataille. kenn indiwul ba tey. waxuma sax preuve début de preuve je ne dis même pas preuve de début de preuve buy a ni am na tuuti soupçon si lu ñuy teg ci kaw ndodd juge yooyu gisuñu ko et pourtant sur la base de ça def nañ fi résolution pour taxawal commission d'enquête mm-hmm. def nañ fi proposition de loi pour reporter l'élection... ...le président l'élection. le décret élection yi conseil constitutionnel conseil constitutionnel di y a assemblée li président décret bi nga jël ni tamit date a ñu pour ñu dem élection kon ñu ngi di ñaan dans les meilleurs délais la de lan meilleur délai nu mu gën a gaawee te yemb xam nga tey ji buñ la ne woon jógal dem bu buñ la joxul paas xëy na da nga naan est-ce que dañ may jox paasu Ndiaga Ndiaye wala paasu car rapide wala paasu taxi. Mm-hmm. donc meilleur délai ci biir loolu président woote waxtaan man nag damaa jàpp ni waxtaan bi ñëpp ci waroon dem ñu toog kaa leen ñu waxtaan nan la ñuy demee élection. dem nañu proposer nañu te luñu proposer tamit xel mën na nangu ci côté article LO 137 la buma code électoral buma djumul bon mais article bi dafa né digënté bañuy date élection bis élection ak minimum 80 jours minimum 80 mm. jours kon xamal ni date bo japp rek dañ ci calculer walé 80 jours yo xam décret bi dañ ko wara maintenant nak lolu mo waral nga le 2 juin wala le 9 juin. maintenant c'est des propositions faites par la commission. Mm-hmm. donc pour moi aussi c'est une proposition assez raisonnable maintenant nak mu dess ndax mënon nañ ko rapport rapprocher. Mm. peut-être peut-être mënoon nañ ko gëna waccé encore mais ci kaw lolu day fekk go am muy benn ci kaw lolu day fekk aussi conseil constitutionnel d'accord ci parce que xam nga lutax wax lolu si on reste dans le sens strict de la loi mhm. on va dire 80 jours yi dañ ko wara del entre diggante bu ñuy jël décret bi mhm. ak diggante ba wara dem voter mais xam nga fi ni on a eu des situations où conseil constitutionnel dafa jéggi lu loi wax te jot na fee am. ma cité la ci ñaar 2017 dañoo am 47 listes élection législative xaw ma yene kay a ko tout à fait ñu ñëw ñu japp ni bo waré jël ben bulletin ben, ben, ba muy 47. day guddal mm-hmm. Mm-hmm. day jël temps té day guddal vote bi. Mm-hmm. président de la république bindu conseil constitutionnel laaj ko avis Né ko est-ce que ñu xool nu ñu gattalé mbir mi pour vote bi gaaw.

avis conseil constitutionnel bu joxee avis appliqué mo ci tab mm-hmm. malgré que violé nañu fofu loi bi. mën nañ ko interpréter comme violation de la loi mais conseil constitutionnel dal bu ne ni lañu def dañ koy fekk ci lolu conseil constitutionnel dafa permettre ñu contourner loi bi xam nga loolooy ben mm-hmm. nga ñëw défé na élection 2019, ñu né amna électeur yu bëri jotul won sen carte ciow li bëri ñu bindaat conseil constitutionnel mu ne ñi nga xam ne jotuñu seen carte parce que ana dafa bindu euh, police Grand Yoff dem na fa ñetti yoon ñu ne ko sa carte nekk fi ñu ne ko demal police Grand Dakar mu dem police Grand Dakar ñu ne ko non yow sa bulletin mu ngi Thiès parce que am na erreur ba kii bi ñu ne léegi conseil constitutionnel jël dogal ne bu dee électeur bi mu ngi ci fichier électoral bi quel que soit le système d'identification may leen ko mu voter mm-hmm. alors que code électoral da ne nit du voter te indiwul carte d'identité moo waraloon nit ku indi permis ku indi carte d'identité scolaire sax dès l'instant que tu es dans le fichier rek on t'a permis de voter xam nga loolu conseil constitutionnel moo def ça s'apprécie kon vous tamit bu dee 80 jours dafa bëri mën nañ laaj conseil constitutionnel mu wàññi ko ñu mën dem quarante jours mm. wala ñu mën a dem ci cinquante jours comme ça entre la fin du mandat du président de la République et le premier tour du jël délai beaucoup de non mais mais Bachir est-ce que cette date là s'inscrit ci euh, euh, temps bi nga xamante ne ni conseil constitutionnel euh, waxoon na ko ci début bi organiser les élections tirer les meilleurs délais. xam les meilleurs délais conseil constitutionnel joxewul joxewul date loolu l'a lay tout est dans les meilleurs délais. d'accord conseil constitutionnel newul les meilleurs délais c'est avant telle date. Mm-hmm waxul dans les plus plus brefs délais waxul immédiatement xam nga aussi les mots ont leur sens. Mhm. waxul tout de suite. kon les meilleurs délais la wax man les meilleurs délais mën nga ci dégg quand les conditions sont réunies loolu ngay dégg ci meilleurs délais maintenant conditions yi lan la condition financière la wala condition technique la lu mu ci mën doon quand les conditions sont réunies la donc comme conseil constitutionnel joxewul won date mhm. organiser les élections dans les meilleurs délais la wax kon kay xana kay fu mu toll nii warul bagn situation bi ñu nek ñu genn ci parce que man dama japp ni nous sommes dans une situation exceptionnelle qui fait que dañ ci wara genn gare gaaw dem ci effectivement te pour genn ci gaaw dem ci lenen dañuy nangu ni li loi la parce que bu doon loi yi réglé na problème problème do am mm-hmm. ñu nangu jëfëndiko suñu xel nangu def ay consensus nangu def ay concessions pour ñu xol nan lañu mëna avancer buñu ko deful rek c'est pas bon donc vous voyez donc il nous faut arriver à dépasser cette situation. Et maintenant, pour dépasser cette situation, il faut naturellement et normalement que len li nga xamné loi bi wax nako nit ñi mën parce que si on reste dans la rigidité de la loi mais problème d'ailleurs am ndax té président de la République a convoquer une électeurs pour le 25 février n'est-ce pas tout à fait décret bi ñu c'est pour le 25 février Le conseil constitutionnel arrêt bi mu du 25 février mais nous sommes le 28 février non. c'est vrai est-ce que est-ce que arrêt valable non mais si nous avons un conseil constitutionnel Voilà, boudé un dialogue bi avons décidé ni liste candidats yi ñu Japon, on le maintient donc il faut ni lois, loi mais consensus non. il nous faut arriver à des consensus qui nous permettent de dépasser cette situation mais nous avons une situation bi nak ana lu ñu war a toog xoolaat dafa bëri ci dëkk bi. Mm. et je pense que le prochain président buy ñëw il aura le temps mu woote waat waxtaan yu gën a yaatu. Mm. yoo xam ne point par point segment par segment secteur par secteur lu ñu war a joyanti ci dëkk bi ñu def ko. d'accord mm-hmm. alors euh, ma dugal euh, rapidement rek euh, sunu gan gi donc maa ngi leen doon wax dina teew ci plateau bi d'un moment à l'autre Pape Sarr bu yeesal taxawaay ñu ngi lay ziar bu baax a baax parce que euh, j'ai pas bien calculé.